jërë ngeen jëf euh, mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu euh, réew mi FM seeni émission pencum réew mi ñu leen di nuyu bu baax a baax mbokk yi comme li nga xam ne moom lañ ko baaxoo di ànd ak yéen samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di si ànd ak euh, Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekk ci wàllu machine bi. mbokk yi tey ñu invité Alioune Sané ñu gën ko xam ci too Sané moom mooy coordonnateur écologiste yi ci département bu Dakar moom la ñu invité tey fas yéene waxtaan ak moom ci ponk yu bëree bëri To wala Alioune Sané ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëñ Jili. Euh, Toosane tey euh, sunu waxtaan fi nga xamante ni tey euh, fi lañ koy dooree ndax yow mun loo nekk coordonnateur écologiste yi ci département bu Dakar ngeen am rôle bu am solo boo xamante ne yéen écologiste yi yéen a ngi koy joué ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy alam bi. Euh, fan yi nga xamante ni nag moom la génn dañu gis ne état bu Sénégal dafa jël dogal nag tere lépp loo xam ne euh, jëm na euh, ci li nga xam ne mooy sachet yi ñuy def ndox yi maanaam ñu xayma daal ne usines yi koy liggéey daal danañu danañu tëj ndax dañoo jàpp ne sachet yooyu mën naa yàq alam bi lu mel noonu nag état bu Sénégal yàgg naa teg projet boobu yow lan moo ci sax xalaat. waaw dëgg la que ku ne xam ne sachet yi problème yi muy indi jafe-jafe yi c'est vrai que tamit loi bi. du du am na ñoo xam ne neexul si ñoom ndaxte ñu bëri dañ si doon yëngatu ñu bëri li ñuy jaay si sachet lañ koy def ñeneen ñi seen yëngatu si la nekk loolu yëpp état préparé na ko jël na ay mesures waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy defar yooyu pour ñu jéem a xool nan la ñuy euh, changer seen liggéey parce que liggéey boo gis da dafa ànd ak jamono. gis nañ ne nag sachet yi day yàq suuf si. day rey mala yi. gis nga ñenn ñi dañuy lakk mbalit te polition boobu. jigéen ñu ëmb yi bu ñu ko noyee mun na am jiixi jaaxa seen seen doom yi nekk seen ëmb seen biir yi donc mu nekk loo xam ne vraiment dañ si encouragé état du Sénégal di invité tamit citoyens yi parce que tey boo demee si boutique bi looy jënd rek sachet lañ lay jox loo jënd ñu jox la sachet te sachet yu oyof yow gis nga ko booy wër Sénégal da ngay gis ne sachet yi fooy dem dëkk booy dugg sachet yi ñoo lay teeru sachet yooyu nag oyof bi mu oyof la ñu koy wax 30 micron yooyu day naaw bu ko defee amul mun nañ ne rek benn sachet baaxul benn plastique baaxul waaye li ci am solo mooy ñu faxe ba am ay jumtukaay yoo xam ne mun nañ ko recycler wàññi utilisation bi gis nga léegi surface yu mag yi soo fa demee di jënd sachet këyit lañ lay jox donc jéego boobu état teg na ko ñun écologistes yi ñu ngi ci jàpp bu baax a baax te si je me rappelle sax Aïdar ba mu nekkee ministre moo proposé woon loi boobu donc vraiment ñu ngi ciy def ay jéego yu bari Modou Fall bi nga xam ne tamit Sénégal prop la nekk di si ñafee gis nga ko muy sol ay mbuusu chassé tout ça. bañ nañ ba daar moo ko proposé woon Macky mu décoré ko par ordre national du Lion. xaw ma du mérite. beneen bi aussi coppiteel nañ ko woon suñu liste élection 2014. comme candidat pour wan la rek képp koo xam ne yaa ngi yëngatu si loolu ñun ñu ngi lay encouragé di wax namit commerçant yi ñu góor góorlu si parce que chassé yi su ñoom lay jógee ñu fexe rek xool euh, nu ñuy def ba euh, wàññi chassé yi nga xam ne tere nañ ko. beneen bi mooy li ñuy wax xool naka la ñuy jëlee suñu liggéey dem def beneen liggéey. d'accord euh, Aliou Sané ba tey ci lu jëm ci wàllum wàllum environnement bi tamit euh, est-ce que sas yooyu noonu am na lenn lu mën a yàq ci bu dee tey par exemple tey ci ci ci géej gi. ah oui ah oui kooku sax waxuñu ko woon li muy yàq si géej gi moo gën a doy waar encore parce que xam géej moo wër àdduna sachet yooyu mun naa la le gis nga maanaam même bu seeyoon si ci si ndox bi bu tasoon ba si ndox bi dootoo ko gisati mais jën yi dañ koy lekk bu ko defee mala yëpp dañuy lekk di nga gis jën yoo xam ne dañuy ŋaang rek pour lekk loolu sachet yi day gën a mooy dugg seen biir mais yow doo ko gis parce que ay ay daggit pepp peppal yu sew la bu yàggee nag ñoom da leen di gaañ beneen bi ñun tamit ñoo koy lekk nga gis ne lu mu yàq si géej bëri na lool lool lool te sachet mun na def ay ati at si biir géej du yàqu du tas donc mu nekk loo xam ne tamit nekk na problème pour adduna bi parce que tey gis nañ ne foo dem si adduna bi géej gi sachet yi ñu fay sànni ak matière plastique yi dafa bëri lool lool lool lool ah, moo tax gis nga boo demee si yenn plage yi ñuy sensibiliser nit ñi pour bu ñu naanee seen i boisson ba pare wala ñu lekk wala ñu def li ñuy def ñu jël mbuus yi yëpp def ko si benn sachet jël yëpp takk dugal ko si poubelle yi pour que ñu mun ko recycler jël ko yóbbu ko mu bañ a dem si biir géej gi. nga gis nag li nga wax yépp muy si wàllu sachet yi si en tout cas gestion environnement en général askan bi ñoo si war a jàpp nit ñi la war a sensibiliser parce que dafa war am changement de comportement. Mmh. te yaakaar naa ne bu nit ñi changer seen comportement rek bu soobee yàlla comportement yépp bu ñu changer affaire yi dina gën a améliorer. waaw euh, Tos Sané gisoon nañ tamit état bu Sénégal amoon na benn projet euh, Euh, Sénégal gu set wecc mais projet boobu euh, am na lu bari lu ci taxaw xam naa peut-être euh, Covid beeg yu demee noonu la mais Sénégal daal gis nañ ne ba léegi ni bokk méngaleeg réew mu mel ni Rwanda Sénégal ba léegi dese naa dese naa set yow lan moo ci sa xalaat ak ban politique nga jàpp ne état Sénégal war na ko see def ak comportement bi nga xam ne Sénégalais yi war nañ ko am au niveau communal ak yooyu. waaw au fait pour, pour l'état du Sénégal sérieusement il faut saluer il faut ñu gërëm effort bi xam ne mi ngi koy def. sous la direction de mon frère et mon ami Mass Thiam ñu ciy encouragé le ministère du cadre de vie gis nga nañu waxante dëgg rek tey UCG ban effort la Mass def ah oui magnifique effort yaa ngi koy gis ñoom ñi ngi si réseaux sociaux yi ne bu ñu chaque jour ñi ngi Wakaam ñi ngi Touba ñi ngi fa ñi ngi dëkk yëpp ñi ngi liggéeyee non nekk ci non nekk ci réseaux sociaux yi nekk ci gox yee ko gën waaw nekk ci gox yi mooy li ñuy nekk si gox yi la ñuy wane li ñuy def si gox yi lañuy wane amul dëkk amul lu ñu ëmpuuf mu ne nii moom kay li ma gis laay wax soo xoolee daal UCG ñi ngi def excellent travail foo dem am na point de collect gis nga nu mu setee ñu def fa ay fleurs déformées am na Médina am na Fass am na fépp nañ waxante dëgg loolu c'est une nouveauté beneen bi mooy gis nga renforcer nañ seen i matériel seeni i nit gën nañ mettre dans les dispositions le personnel ah mettre jox leen ay moyens yoo xam ne jumtukaay tey gën gën nañ sawar seen liggéey di leen déco di leen décorer di leen encourager loolu moo fi am donc ma je que mooy li ma la waxoon rek fa la ñuy dellu si nit ñi nag ñoo war a góorgóorlu fexe kenn du jël mbalit sànni ko fële wala fekk poubelle bu fees nga dolli ko si nañu dem si point de collecte yi joxe fa mbalit yi bu ko ñëpp defee point de collecte yow gis nga ko Dakar doy na boo demee foo dem ba Fatick ba Diourbel ba Touba am na fa wax dëgg yàlla nañu góorgóorlu jàppale état si liggéey boobu parce que état mënul def lépp réew mi mooy mooy ñoo mun a def li ñu war a def ñun askan bi ñoo am liggéey boo xam ne war nañ ko def mooy jàppale état si effort yu muy def moo gën lu mu état investir rek ñun ñu seetaan ba ñàkk ko lu état investir ñu seetaan ba ñàkk ko wàllu mbalit mi nit ñi da ngay gis oto bu romb nga gis ku naan ndox sànni mbuusam nga gis ku naan kafe sànni kaas bi nañ waxante dëgg nit ñi ñoo war a góorgóorlu parce que tey boo ñëwee fenn nga gis waa UCG bale bu ñuy romb bale bu ñu boo dellu seewaat gis gars yi sànni nañ fa ay kaas ñii sànni nañ fa ay mbuus ñii sànni nañ fa ay lii sénégalais moo tàmm jaaykat yi tamit waxi noppi dangay ngay ji mbuus rek sànni ñoom amuñu culture def ko yor benn sachet def si benn sac di def seen balit wala jël ko di ko def euh, dama koy wax ay boy yu nekk sama koñ fële dañuy ñëw ñoom ay ceinture la ñuy jaay ñooy toog jardin bi ñu def foofu si si Médina bi jardin Amath Diagne mm-hmm. booy suba fa la ñuy defee seen marchandise yi fa la ñuy toog bu ñu ñëwee toog si pot de fleurs yi d'abord toj nañ yu bëri parce que dañuy toog si pot de fleurs yu guddi yi mu damm si digg bi yàgg naa leen ko wax beneen bi dañuy ñëw suñu dindi ceinture yi dindi mbuus bi sànni foofu dindi nga gis mbuus yi di naaw dugg seen yoon nekk aussi wax ji loolu la yow defal nañ la cadre boo xam ne dëkkoo fa mais fekk nga fa ba mun ñëw fa toog fa ndékki defar sa marchandise mais wax dëgg yàlla boo fay jógee for leen li ngeen fa bàyyi boo ko waruñu ko dindi sax sànni parce que le temps ñuy jóg sax naaw na dem na feneen dugg na si garab yi wala dem na feneen nit ñi ñoo war a yaru si si mbiru calte yooyu wax dëgg yàlla dañu war a góorgóorlu. waaw euh, Sénégal tamit gis nañ ne bëri na euh, gox yoo xamante ni tey euh, am nay garab waaye lu jëm ci wàllum reboisement jëmbat garab est-ce que jàpp nga ne Sénégal fonk na ko wala am na si projet. waaw actuellement temps yi doo xoolee dëkk yëpp ñu ngi def effort wax dëgg yàlla soo ba may ñëw léegi rek maa ngi koy xool soo xoolee fii commune bi HLM commune yëpp doo gisee gars yi ñu ngi def effort de reboiser ñu ngi saxal garab adduna ba Sénégal boo demee si région yi fépp foo dem gis nga ba keroog rek am na gars yu ñëw di ma laaj ay garab yóbbu Touba vraiment gars yi ñu ngi góorgóorlu si côté boobu ñi ngi def fépp ci Sénégal boo demee euh, ak ak l'agence pour la reforestation et la grande muraille verte gis nga ñi ngi dem fu ne di jox gaa yi garab askan bi pour ñu saxal def ay pépinière léegi te lu loolu moo si gën a extraordinaire dañu def ay pépinière si dëkk yëpp pour que léegi soo soxlatee garab jol soxla ngi ñëw ba dakaar donc pépinière bi mun nga ko amee foofu mun nga mun fa amee garab donc effort yooyu ñu ngi koy def gis nga tamit Eaux et Forêts disposition jël am nañ tamit matériel bu leen gaa yi renforcer temps yi rek état recruté na presque au niveau de l' agence rek pour la reforestation presque 7000 emplois sans compter je pense c'est combien d' en tout le ministère de l'environnement am ñu koy wax l' emploi vert booy faxe jël jeunes yi ndaw yi dugal leen si liggéey boobu ñu jàppale si askan bi pour que fépp am garab parce que gis nañ ne ñàkk garab baaxul suñu santé ñàkk garab baaxul si suñu environnement bi parce que day indi ay changement climatique maanaam tàngaay bi di yokku te tàngaay bu yokkoo da ngay gis jën yoo xam ne sax ñuy daw parce que bëgguñu tàngaay nga gis tàngaay bi bu yokkoo dina indi jafe-jafe yu bari daal ba tax na tey réchauffement climatique boobu tax na nit ñi euh, ñu ne saxal leen garab yi pour que feex bi am euh, taw bi mun a wàcc. d'accord voilà euh, jërëjëf Alioune Sané yow nga bokk ci rassemblement des écologistes du Sénégal. yow yaay coordinateur bi. FEDES euh, fédération démocratique des écologistes du Sénégal. waaw fédération. des écologistes Sénégal. bu dee beneen bi mooy res boobu. Ah. rassemblement des écologistes boobu Berté moo ko jiite mooy bi Soleya Mama jiite woon Ichar. ok voilà fédération démocratique euh, des écologistes du Sénégal léegi yéen écologistes yi bi nga xam ne parti boobu si nga bokk. Hmm. mooy euh, fédération boobu noonu kuréel boobu. kuréel boobu yéen yéen a ngi bokk ci mouvance présidentielle. Hmm. mais est-ce que tey. yéen weg nañ leen ci mouvance présidentielle ndax gis nañ ne euh, joxoon nañ leen ab ministre ñaari yoon ñu ñu jëlaat ko mel na ni yéen daal yéen a nekk di wax ci Macky Sall mais dafa mel ni Macky Sall da leen amul considération ci fédération démocratique des écologistes du Sénégal. waaw loolu ñun waxtaan nañ si def nañu def nañ waxtaan ba ba ba directoire bi passé ñu amoon réunion waaye wax nañ ko vraiment on aurait souhaité Euh, Benno Bokk Yaakaar jox ñu cër bi ñu war a jox te loolu tamit moo am Médina moo am fépp si Sénégal joxuñ leen cër euh, du ñun rek ah du ñun rek dañu gis ne bon Benno Bokk Yaakaar bi soo xoolee lépp daal euh, waa APR dañu ko gën a bëgg te loolu dafa nekk loo xam ne ñun déploré nañ ko di wax tamit président Macky Sall ñun ay sénégalais lañu comme sénégalais yëpp boole suñu ànd dañu waxoon gagner ensemble gouverner ensemble c'est vrai que Aïdar il est directeur général tant mieux Mamadou Thioune notre responsable de Rufisque et membre du Haut Conseil oui pourquoi pas parce que Thioune ku ne xam ne efficacité am ak liggéey bu mu liggéeyal Sénégal ba at yi mu am moo xaay ay daal yëpp mérite la maintenant nag dañ ñu war a tamit gëstu xool gox yi ñu nekk nan lañ fa nekkee ak ñoom bu ba jëlee exemple Médina bu ma xam ak yeneen exemple parce que su ma naatongo yu kër bi ñuy waxtaan directoire même suñu groupe bi tamit wax nañ ko ñoom ñëpp rafetlu ñu. Ah, non non waxtaan bi ngeen dajee woon too. waaw euh, lan moo doon waxtaan boobu noonu. bëri na lan moo ko sababoon. na dañ euh, fonctionnement parti. Euh, les élections et cetera et cetera. wax nañu lan ngeen fa reproché benn bokk yaakaar. moo ñàkk considération à nos à nos à nos euh, camarades nos camarades militants ñàkk considération à nos responsables surtout dans les localités aussi et c'est vrai que vraiment gisuñu suñu bopp ñun ñi nga xam ne ñooy ànd ak Aïdar bien vrai que bon même si Aïdar est nommé Aïdar n'est pas la seule compétence au, au niveau des écologistes pour accompagner le gouvernement du Sénégal dans sa mission donc je pense que ñoom ñoo war a am honnêteté parce que góor moom noonu ngay àndee ak sa moroomu góor da koy gestu di ko bàyyi xel xam ne ñoo bokk réew mi ñun ñoo ànd ak ñafe donc bu ñu gën a bëgg lépp loolu nag jikko baadoolo souvent maanaam lu ñu bokk nga bëgg jël lépp loolu moom baadoolo ko moom te ñun xamuñu loolu yaruñu cité bugguñu kenn mel noonu donc li ñuy wax rek mooy ma ma profité aussi sax occasion bi nekk porte parole de mon parti parler ne ñun tey la ñu gën a bokk benn bokk yaakaar mais nañ ñu jox cër wax nañ ko ay daar moom it wàllam na ko def jox cër ñi mu àndal bu ko bu ko defee Macky tamit jox ko cër te wax nañ ko tamit moom nay wax nay waxal parti bi nay wax si kaw ñu dégg ko wax ne ñun kontaanuñu gisuñu suñu bopp si liggéey bi donc voilà ñi ngi def li ñu war nag mais ba léegi gis nga tey foo dem gox boo dem rek ñeneen ngay dégg waaye du du non ñun du ñu dégg si ay action mais je veux dire <clears throat> ñeneen ngay dégg si wàllu Euh, nomination si ay wàllu responsabilité ñi ngi koy jox xam nañ leen ñu nax ñoom a dëkk par exemple moo ma ñëwee Médina kan nga fa gis yaa xam ku nekk au conseil yaa xam ministre yaa xam directeur yaa xam ministre conseil yaa xam ñoom ñëpp affaire lañ bokk ñoom ñëpp ah, sans sans euh, exception mais tamit euh, xam nga tamit tey bu dee écologistes yi fédération démocratique des écologistes du Sénégal bu dee ki nga xamante ni tey moom moo ko jiitee taxawaay bi mu war a am ndax boo jiitee benn kuréel su dee am nga nomination rek da ngaa warul tax nga noppi ndax dafa am ñu bari ñu topp ci sa ginnaaw am ay compétence war a mën liggéeyal seen réew te ba ñafe jotee tamit dañoo ñafe euh, ba ñu jot si réew mi mais taxawaay bi Ali Aïdara war a am diggantaan wane fulla wane fayda di xeexal parti bi di xeexal ñu nekk ci parti bi est-ce que taxawaay boobu Ali Aïdara am na ko non j'avoue ko defu ko sérieusement loolu rapproché nañ ko ko man mi wax naa ko parti bi ñu ngi koy wax maa ngi koy ñaanal sax wér dafa feebaroon mais tane na donc ñun ñëpp kenn kontaanu si loolu wax nañ ko ko dañ ko ne waxal politique de l'écologie du rek saxal garab da ngay wax pour que les compétences yi fi nekk l'expérience yu fi nekk parce que saxal garab ñëpp la soxla environnement ñëpp la soxla couche yëpp nga doon mason nga doon menuisier nga doon mécanisien nga doon journaliste environnement ñëpp la soxla bu ko defee ñu ngi fi mais nag ñun mënuñu fi nekk di liggéey ñun duñ suñu parti du parti wax parti liggéey la waaye nag da ngay xam li nga moom nga jël sa cër loolu ay daar wax nañ ko ko na ko taxawee parce que sinon dafa am lu muy niru ñuy foog ne moom mooy seddu bàyyi ñi mu àndal oui dañ koy wax ne ko dañu bëgg ñu jox la cër bu gën a mat fa nga nekk muy agence bi mais jox cër ñi nga àndal aussi si réew mi parce que si lañ bokk te wax dëgg yàlla yàgg nañ si liggéey bi kenn mënuñu si Euh, ay daar foofu la question pour être plus woy ay Aïdar dafa war a góorgóorlu taxaw di wax ñu koy dégg parce que loolu mooy écologie écologie mooy tamit plaidoyer. mais est-ce que tamit tey par exemple tey yéen écologistes yi bëri na ci ay euh, ñoo xamante ni tey ay cadre lañ euh, est-ce que mënuñu woon a jël ñenn ñi dugal leen euh, ministère de l'environnement ñi ñu dugal leen ministère de la pêche ak yeneen ak yeneen ak yeneen lu tax ñu ginnaawal leen wala da ngeen amul ay nit ñu am xarañteef boobu. ah non y en a beaucoup déggoo li mu la wax léegi dama ne la déjà l'environnement ñëpp la soxla. environnement ñëpp la soxla beneen bi am nañ suñu benn xarit Bakary Ndiaye moom moo nekk moo ñu nekkal Pikine Bakary Ndiaye est directeur de développement communautaire bu bu bu Ziguinchor mhm. voilà am nañu ay compétences naturellement ah on a des compétence beaucoup de compétences dans tous les domaines ah donc man je pense que euh, euh, wàllu environnement yaatu na yaatu boo xam ne foo bëgg a def nit mën nga ko fa def mais li am solo ñu war ko xam mooy du affaire partage gâteau du affaire yooyu fii xam nañ ne sawaay koo fi fal ministre mu ami nit koo fi fal directeur mu ami nit wax ji loolu la nañu waxante dëgg mbir bi ñun koo si jox au conseil dina mën a jàppale ñeneen askan bi dina mun a jàppale ñu bari wax ji loolu la wax ji mooy peut-être da nga koy raay di ko waxee neneen fii noone la pas là pour trop réfléchir ay oh le technocrate wala dama ne fii ñun ñëpp ay nant lañu xam nañ li gars yi soxla réew mi. voilà nañu si boole dafa mel ni dafa mel li ngeen xaar 9 euh, ans président Macky Sall ci 9 ans yi est-ce que réellement Aliou Sané 9 ans yi. yéen écologie yi est-ce que gis ngeen seen bopp ci réew mi euh, réew mi ni muy doxee waxuma na ngeen séddoo alalu réew mi waxuma tamit ngeen di euh, noot askan bi waaye au moins ngeen bokk si ñi nga xam ne ñoo ngi taataan seen xalaat ak seen xam-xam ak seen taxawaay. waaw waaw loolu la ñu loolu la ñu bëgg du affaire séddoo sax ban séddoo fii suñu réew la ñoo ko bokk ma ne réew mi ñoo ko bokk dañ ñu war a def ay député dañ war a def ay au conseil dañu war a def ay maire dañ ñu war a jàppale def ñu ay ministre hmm. def ñu ay directeur def ñu ay PCA wax ji loolu la. te defuñ ko te defuñu ko benn directeur lañ fi am muy ay daar te wax nañ ko tamit moom na faxe rek lu li mu am ñu bokk ko aussi ah oui mu jàppale si askan bi mais benn direction. Hmm. waaw benn direction mais loolu mooy tax mooy wax ji xam nga tey danga ma laaj lu leer laa lay wax li ma lay wax maa bëgg naa sax président dégg ko. ok dina la fexe dama bëgg président dégg ko bëgg Aïda dégg ko ñu xam li may wax dëgg la te kenn mënu ko dindi. dama ne góorgóorlu leen xam ne ay nit ngeen àndal. ay nandite dañ leen wan ginnaaw dañ waay non ma ne ay du ñu dof ñun ñoom xam nañ ñi ñu àndal ñan la ñu. ñoom ñoo war góor góorlu si ñoom la des de. waaw non damaa gis tamit dafa am ay parti yoo xam ne bëgguma tudd benn tur mais am na parti politique yoo xamante ni peut-être tey euh, amatuñu base politique wala amatuñu ginnaaw te gis naa ñu am ay nomination yu bëree bari wala yéen fédération des écologistes du Sénégal da ngeen amul ay militants wala lan moo xew. non xam nga militant mooy li ma la wax rek dama ne la militant dañ koy liggéey tamit militant dañ koy amal njëriñ tey boo ñu ñëwee dinaa lan la fa dul defal nit ñi. man Sané ak ñi ma àndal lu ñu fa dul defal nit ñi lu fi politicien joxe rek joxe nañ ko yaa xam ceeb la yaa xam duulin la ba si màggal tubaab yi boo joxee paas ñu joxe paas amul benn problème te duñu directeur duñu maire ñu ministre militant nag dama ne day am lu mu yaakaar si yow tamit mooy nga liggéeyal ko mais dama ne la bu doon rek ñiy liggéey la ñuy fal sax ñun ñooy falu parce que boo duggee tey Médina jardin yi nga fay gis ñun dañ si jàpp. waaw non mais xam nga tey feneen. mais xam nga xam nga tey euh, Aliou Sané par exemple tey bu dee da nga nekk euh, responsable politique bokk ci fédération des écologistes du Sénégal am nay militants yoo xamante ni euh, ñoo ngi seen koñ. militants yooyu dinañ am xew. dina am ñoo xamante ni seen i mbokk dina feebar am na militant yoo xam ne bëgg na ñoo def cant ñi bëgg ñoo def màggal wala nangama naam te il faut kon boobaa yow mi fa nekk responsable il faut nga jàppale leen mais su dee nag parti bi jàppale wu la fekk Ali Haïdar gis wu état bi tamit euh, gouvernement bi boole wuñu leen ci dara loolu pour nga def ko en tant que responsable dafay dafay jafe aussi. waaw loolu moo jaf mooy jafe-jafe bi fi moo tax ñun heureusement yàlla may nañu expérience loolu mooy xam-xam bi mooy jàng bi mooy am nañu ay compétences yoo xam ne avec des partenaires dañuy ñëw di ñu jàppale ñu jàppale askan bi ñun ñooy uti moyen indil état. donc ñoom dañu war a góorgóorlu gis nga ni ñuy jàppale suñu maire yi jëluñu si xaalisu kenn ñun ñun mun na njëkkati suñu loxo dox fu ñu neex ñun amuñu yow xam nga ko sax jili yow si dëkk bi nga dëkk yow lu fi waay def rek xam nga ko donc ñun fii te ku ñu defal lu baax ñu wax ko mais dama ne gars yi ñoo war a góorgóorlu gor booy àndax moom mu ne tekk waxul ba tey yow yaa war a góorlu xam ne dafa am gor yoo àndal ñu def fu gor daal Euh, ànd liggéeyal askan bi. d'accord léegi euh, Aliou Sané euh, mbokk yi moom la invité ci rajo Réew mi FM seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot 15h 16h moom mu bokk ci fédération démocratique des écologistes du Sénégal Ali ñu wax ci élection locale yi dinañ ñëw nag ci coow li actualité beeg xeet yooyu mais. dañuy rebond ñëw rek ci élection locale yi ak investiru Benno Bokk Yaakaar ndax ñu bari dañu jàpp ne Euh, dina nekk investiture yoo xam ne soo muytuwulee piccog mbaaloo gi dina bëri ndax dañoo gis timit ne comme ni nga ko waxee sànq localité yu baree bari waa APR nga fay dégg ñoom dañuy jàpp na ñoom ñoo war a nekk maire liste bu nekk ñoom ñoo ko war a jiite euh, ndax boo demoon ci localité yu bari soo déggee da ngay dégg parce que ña nga dégg rivalité ba fa am wala dualité ba nitu APR kese ngay dégg ñaari APRiste wala ñetti APRiste wala ñeenti APRiste mais rarement presque nga si boole ku ku nekk koo xamante ni ci allié la investiture yi lan nga ci xalaat. waaw li nga wax dëgg la c'est normal que mu am engouement boobu ah parce que tamit euh, coalition yu mag la muy coalition présidentielle mu am ay ambition dëgg la aussi bu ma jëlee exemple ñun suñu Medina Bale da ngay gis ne effectivement li nga si gën a dégg waa APR yi ñu gën a fës si élection yi te c'est loin d'être ça c'est très loin d'être ça non non non non non la réalité tey man maa la koy wax fii loolu c'est pas la réalité c'est parce que peut-être ils veulent se faire entendre mais tey consultation yi nga xam ne maa ngi koy def maa ngi recevoir partie yëpp ba hier maa ngi recevoir waa URD recevoir nañ parti yu bëri li si des bëreetul foog na ay kàttu fa des. xam nga euh, euh, Aliou Sané li tax ma laaj la lii danañ ñëw ci euh, Médina mais dama gis tamit fu mel ni comme li nga expliqué Médina nii. sànq waa exemple mais dama la bëgg jox beneen exemple même boo demoon tey Mbàkke dama jël benn responsable politique keroog émission ñuy waxtaan mu ne ma moom APR la bokk mais li leen doon xañ mairie bi mooy ñoom waa APR kese ñoo doon waxtaan ci seen biir def seeni lobby ba am seen candidat xam ne ñële. alliés yi dañ si téye seen loxo ci élection yooyu bu ko defee ñu gañee leen moom mu ne jot na nag ñoom waa APR e ñu woo alliés yi toog waxtaan ak ñoom bu dee alliés yi gis nañ ko koo xamante ni mu nekk na candidat potentiel localité boobu ñu jiital kooku mais li ñu nemmeeku ñun en tant que journaliste en tant que observateur gis nañ ne localité yu baree baree bari ci Sénégal mën naa la koo tuddal mais ñañ fay wax ne ñooy xëccoo presque ci APR e Euh, APR lay doon léegi ñoom bu dee vision boobu lañ bëgg a am est-ce que mënu leen a yàqal ci élection locale yi. oui mooy li ma la wax rek dama ne dëgg la c'est que xam nga toujours parti au pouvoir ña fa nekk dañu ànd ak benn doole. buñ leen jox parce que dañu am ay force moyen am force pouvoir décision. te président moo jiite parti te président moo jiite parti boobu mais nag mooy li may wax sànq nit da am élégance ak intelligence su xam ne moomoo ñu te nekkoo fi yow rek. loolu dañu la ko war a loolu bu du ñu xaar sax journaliste yi la ko wax yow boo nekkee ay nit danga war a xam ne yow yow rek nekkoo fi te ñii nga àndal yóbbalu leen dara sénégalais nga ñuy sénégalais on doit fair le choix comme ni ma koy faral di waxee tout le monde peut briguer la mairie mairie moo ëpp garanti ñuy yuuxu fii yëpp ku fi nekk candidat rek mairie la gën a riche moo la ëpp garantie donc soxlawuñu du sa alal du sa len xam nga lu ñu soxla. équipe municipale la mairie du benn candidat ay candidat la liste la c'est des candidats ils sont tous investis au même pied d'égalité mais soo gisee fausse note bi da ngay gis ñuy wax man maay candidat man maay candidat ba nit ñi foog ne sax comme genre élection présidentielle de benn candidat mooy am te on doit parler de candidature au lieu de candidat d'abord ñu am respect sur le principe de la qui régit la décentralisation am respect sur le principe le, le, le la discipline de coalition am principe ak ngoru xam ne tamit li ñu jàngal suñu aada suñu cosaan danga nga ay nit. mais da nga gis ne coalition benn bokk yaakaar waa APR ñoom ñoo ko ngar dajoo. no si yow yaa ko gis sax ba laaj ma ko te loolu man jox naa la exemple loolu nga gis Medina dangay gis ne ñu ne Seydou Gueye Cheikh Ba ña ña ña c'est pas le cas donc moo wax la ne am na yeneen candidat déclaré peut-être xamu leen leen. parce que ñooñu peut-être def ñu bruit wala demuleen si ñoom non non li nga wax sànq. Euh, d'accord naa que ne euh, njiitu réew mi moom dafa jiite parti APR parti boobu mënut a ñàkk am doole si côté euh, financière ak yeneen ak yeneen ak yeneen mais manque de respect bi manque de respect ñenn ñi dañoo sentir ne dafa am ci coalition benn Bokk Yaakaar ci ñu bokk ci APR ñoom dañu jàpp dañu respecté wul seen alliés yi manque de respect boobu ñenn ñi di laam-laamee. est-ce que yow mën nga ko confirmer. oui dama koy confirmer je l'ai dit manque de considération et finalement day day indi manque de respect parce que affaire bi du de mooy li ma la wax nekkal parti au pouvoir am na ñoo xam ne ñun ba ñu nekk ci coalition bi ñoo ñooñu dugguñu ci parti au pouvoir wala sax nekkal parti au pouvoir oui le problème sénégalais nga may sénégalais ñun ñoo bokk coalition coalition moo porté président du sa parti bu dee longévité suñu parti ba mu juddoo sa parti judduwul bu dee expérience politique ñoo la ko ëpp bu dee expérience professionnelle ba ñu koy ba ñu si nekkee nekkoo si mais l'essentiel ñun ñëpp dañu dajee pour liggéey suñu askan dañu war a joxante cër cër bi mooy nga xam ne yow rek nekk fi mooy li ma wax coalition la ñu wax lu tax président Macky Sall demande ñu cette fois si pour que ñun ñëpp ñu dem mais parce que xam nañ ne fii gis nga politique moo laaj loolu léegi politique dafa laaj yëkkatindoo tegandoo wat gaal yëgoo waaye nekk seen biir yi nawle mu mel ni yéen rek fi nekk loolu rafetul te gis nga ñu bari rafet luñ ko. mais est-ce que mënul indi frustration ci benn bokk. yaakaar bien sûr naturellement yàgg na ko indi sax yàgg na ko indi yàgg na indi frustration mais foog naa ne nag ñi nekk si biir ñoo war a am seen fulla wax wala wane seen bopp comme ni ma koy defee nii tey si rajo bi tey bon bu jotee tamit dinaa ko def feneen. te dootu leen nangu manque de considération di di continuer. ah non non non mënul nekk mënul nekk yow mënoo jël yëpp nag mënuñu la jox poste jox la ay responsabilité jox la pouvoir ba pare ah nga ànd say naw la léegi bëgg jël lépp. non loolu mu waru mun nekk loolu tax du àndu gor mooy li ma la wax rek nit da ngay xalaat use your brain s'il y a pas la tête y la cervelle <laughs> il faut qu'il pense ces gens là il faut qu'il réfléchisse c'est tout ay nit la ñu nañu xalaat bu dee jàng nañ sax ku jàng da ngay da ngay am xel da ngay am ku jàng mooy xam lu mu war a def ku jàng mooy am discipline de parti ku jàng mooy xam discipline de coalition ku jàng mooy xam lan mooy principe décentralisation c'est une équipe municipale avec des candidats d'accord léegi voilà ça il faut que les gens ñu yeewu si loolu. léegi euh, su dee élection locale yi. Hmm. investiture yi manque de considération bi ma ngi persister di dem ci waa APR ndax euh, li ñu gis mooy bu séddalee député jotee APR ñoo si ëpp luñ jariñu bu dee séddalee ci wàllum euh, ay poste ministériel gis nañ sax ne waa APR leneen lu ñaaw li nga xam ne ñu bari ñaawlu nañ ko. dañuy dem ci seen alliés yi sax di jéem a jël seen i militants di leen dugal ci seen biir parti loolu lañ koy faral di gis mais man manque de considération bi bu continuer Aliou Sané est-ce que mënut a gàllankoor benn bokk yaakaar ci élection locale yi ci localité yu bëree bëri. oui naturellement naturellement mun na indi ay jafe-jafe kay affaire bi du affaire jaay doole affaire bi da ngay nite. bu continuer mën ngeen a perte commune mais bien mun na indi problème yu bëri loolu mooy division bi division bu amee perte nañu. il faut xam nga lan ñu def yëfu nit maanaam mooy li mu wax léegi nit da ngay def yëfu nit dafa am loo xam ne ñoo ko seq bokk ko dama ne boobu ba léegi ñu ngi ne tekk gore si nag waaye nag loo gis dafa am fu mu yem nit ki da nga war a am xel moment yi ñu jëm principe yi ñuy woote pour diriger principe yooyu boo koy wootee danga koy jëfee ku bëgg a yor Sénégal wala nga bëgg a yor maire yi da ngay njëkk a respecter sénégalais yi respecter population yi waxatuma laax nag ña nga àndal ba pare boo mënul jox ñooñu cër ñooñu boo leen wulul wan lan mooy solidarité lan mooy respect de group nan nga ko mun a wane askan bi c'est faux mbokk yi yéen a ngi déglu euh, réew mi euh, FM seen émission pencum réew mi ñu invité Aliou Sané mu nekk responsable politique euh, Médina commune bu Médina bokk ci fédération démocratique des écologistes ñoom écologistes yi nag su ma sukkandikoo ci kàddoom am na ñoom lu leen naqari ci coalition benn Bokk Yaakaar ci manque de considération bi gis nañ tamit ne ñoom euh, dañ leen a wan ginnaaw wala euh, jàppale wuñ leen ci ay nomination ak euh, mbir yu demee noonu léegi yéen Aliou Sané bi ngeen waxtaanee ba pare yéen écologistes yi mooy ndaje mi ngeen demoon xaw ma géejawaay kenn ku ne wax na fa wax ngeen dénoncé ngeen ñàkk manque de considération bi bi nga xam ne bu yàggee de ni sax manque de respect euh, jombul ne waxtaane ngeen fa wala jël ngeen position wala nu ngeen xalaatee doxe ci élection locale yi ban taxawaay ngeen bëgg am yéen écologistes yi. waaw d' abord li njëkk a mooy dañuy décidé ne dañuy dem dans la coalition. waaye si kaw ñu jox ñu cër yi ku mel ni Mamadou Thiou Thioune au conseil wax na ko oui écologistes yi tey dañuy war a nekk ay maire écologistes yi dañuy war a gérer commission environnement yi loolu ñun. dañu bëgg ñu jox ñu suñu wàll ci biir mbir bi maanaam ni ñuy gérer askan bi ak li ñu war a gérer askan bi parce que ñun kenn ëpp ñu ci waar kenn ëpp ñu ci wàll te nit ki li ngay wootee da nga koy niru je pense que aujourd'hui monde bi yëpp d'accord nañ ne la question de l'environnement l'écologie n'est pas une option c'est un passage obligé pour tout le monde quelle que soit ton idéologie donc ku ñuy jaay xam-xam tey xam-xam bi mu ngi foofu c'est l'écologie tout le monde est appelé à. léegi li ñu fa wax daal mooy dañuy fexe. ñu jox ñu ay responsabilité cër yu mat fépp surtout élection yi ñu jël en considération suñu militant parce que boo jëlee suñu cas bi ñu am euh, Dalifort am nañ fa benn adjoint maire Cheikh Diop moo nekkoon adjoint maire Idrissa Diallo mais ba ñu demee ba Idrissa Diallo gaañu moom dafa frustré parce que dafa gis ne fii d'après explication dañ ko wër nomb wàññala loxoom pour beneen maire bu fa ñëw toog di ku bokk ci APR te moom conseiller écolo yi ñëw fa ëppoon su ma jubul ñoo ëppoon waa affaire yi foofu waa benn benn boo ko yàggal sax en disons voilà loolu tax na moom mu frustré maire ne du demax tey si coalition bi du ànd ak coalition benn boo ko yàggal ça c' est l' adjoint maire Cheikh Diop moom si boppam nee na dafa fas yéene dem beneen coalition mais pas sur la bannière de l' école mais du ànd ak benn boo ko yàggal am nañ yeneen cas yu mel noonu. ay frustré ay frustré. Bambey frustration na Bambey. suñu candidat ba fa nekk Mame Thierno suñu responsable moom dafa dafa ne moom du ànd ak benn ko yaakaar parce que maire ba fa nekk dëkk bi bëgguñu ko kenn bëggu ko et cetera et cetera te ku ànd ak moom da ngay ñu dàngul ko ko tamit mais tout le reste bon ñu si ëpp amoon nañ tuuti résistance si yenn gox yi mais waxtaan nañu ku nekk wax nga sa problème ñu nangul la ko tamit loolu moo lay wan ne rek dañuy bañ mu yokk sax feneen mu mu law feneen mais li si am solo mooy affaire yi sax mooy looy xeex da koy xeex si biir ñun si biir la ñuy nekk dinañ ko lijjanti foofu si biir li ñu tënk daal si réunion boobu mooy danañ dem ànd ak benn bokk yaakaar la ñu tënk mooy wax nañu ay laar na góorgóorlu wax président Macky Sall di ko dégg na góorgóorlu wax ñun ñi ànd ak moom ñuy dégg xam na mi ngi wax parce que mun nañ foog ne moom dafa toog rek noppi. jàpp njàmburam voilà. non mais euh, Aliou Sané euh, même Ali Haïdar euh, bu waxul en tant que. responsable moral parti bi xanaa euh, ma Ali Aydar kese moo fa nekk xanaa am na ay cadre yoo xam ne ñoo ngi réunion ci seen biir war wax am na ay jeunes yoo xam ne euh, bu wax jotee ñoom war nañoo def sortie loolu xanaa euh, parti bi amul benn benn structuration bu ci am. ah kay parti bi nous avons des jeunes des jeunes dynamiques nous avons des. des cadres à tous les niveaux. face dans tous les domaines le problème n'est pas là le problème mooy Aydar c'est la personne morale qui doit porter notre parce que waxam peut-être niñ koy déggee bokkul ak waxu Sané. ok dañu bëgg Aydar moom mooy toog ak Macky Sall di wax ñaata yoon ngay gis mu ñu ne ay Aydar reçu par Macky Sall wala Aydar euh, télé mun na téléphoner Macky Sall Aydar mun na ko wax mais suñu candidat yi fee ñun dañu bëgg suñu nit ñi falu dañu bëgg suñu nit ñi jël am ay responsabilité dañuy ànd pour pour avancer ku bëgg a avancer réew mi day njëkk a waaw yow boo mënul avancer nooy avancer le réew. dañu mhm. waxante dëgg. affaire yi am na loo xam ne jarul laam-laamee. ay mag ñu fu ñu jamono ji fu ñu toll tolluwuñu si dama ne Aïda doit porter la, la parole des écolos auprès du président de la République auprès de la conférence des leaders de Benno Bokk Yaakaar d'accord léegi euh, Aliou Sané euh, ba tey ñu wax ci euh, local yooyu yéen am na ay frustré naam su dee dem nañ ci investir yi ñu gis ne lawoon lawoon fawoon maanaam <laughs> comme ni nga koy waxee la woon fa woon na woon la woon fa woon na woon laakoon faakoon ñaakoon. waaw to bu dee tey dem nañ ci élection yi locale investiture yi. ñu gis ne. yéen écologistes yi dañ leen a sempi sànni leen. wala dañ leen a sànni fële euh, lan mooy nekk seen taxawaay. non bu boobaa ñu wane suñu bopp. boobaa dinañ wane suñu bopp moom. du ngeen ko nangu déedéet duñ ko nangu. li ngeen nangu woon daal dootu leen ko nangu. non dañ ko musul nangu sax dañ ñu ko. non dañ dañ dañ ko teg suñu kanam ñu seetaan. Mhm. nekk góor rek ay ñu nekk gentleman nekk gars yu muus yu jàng yu am xam-xam ñu taxaw di leen seetaan. am patience parce que la patience c'est c'est c'est ça paye. Mhm. maintenant tey mi ngi nii kenn du wax ñoom mënuñu wax si loolu. c'est la vérité soo jëlee yëpp après da ngay neex a gis. d'accord ñoom ñoo yanu lépp léegi ko foo dem ñoom ngay gis. d'accord léegi surtout euh, léegi. Euh, terewul nag ñun li ñu war a def ñu ngi koy def ah, ñun ay liggéeykat lañu. kenn mënuñu si te ñun xaaruñu kenn. léegi Médina. Mm. Euh, Médina élection locale yi nga xam ne moom lañ dëgmal. Mm. liir naa ci presse bi ñu ne Benno Bokk Yaa ñu ne APR xaw ma. Mm-hmm. APR daal en tout cas tànn nañ fa ñoom seen i seen i candidat am na ñu ne Cheikh Tidiane Ba am na ñu ne. Euh, Seydou Gueye mm, ñoom ne candidat lañ mais de manière globale benn Bokk Yaakaar Médina est-ce que gis nga ne déggoo am na ci biir benn Bokk Yaakaar ñoo ngay xàccandoo ñoo ngay dóorandoo est-ce que tamit gis nga ne ñoom ñépp ñoo ngi toog di waxtaan ci seen biir pour l'intérêt de la Médina non j'avoue ko benn réunion lañ defagum au niveau de la coalition benn Bokk Yaakaar Seydou moo ko convoqué woon. c'est yàgg waaw yàgg na tuuti def na peut-être deux mois comme ça wax nañ fa ba ne dañ koy élargir au mouvement de soutien aux sympathisants te loolu mooy coalition coalition du bañ mouvement de soutien du bañ sympathisant waxtaan nañu rafetlu waxtaan bi ba ñu génnee tamit def naa benn sortie parce que gisoon naa ay éléments di wax wey Seydou le futur maire et cetera man leen nag il faut avoir l'intelligence de commenter la publication du ay publication dañ doon tànn candidat wala kii mooy suñu candidat ñun lu ñu bëgg la ñu bëgg peut-être ba ñuy bëgg sax ñoom bëgguñu loolu dañ koy rappeler parce que foog naa ne man mi Sané ku nekkoon candidat 2014 bu la neexee nga laaj ma tax nga donc problème bi du loolu ba pare pour ñu ma expérience municipale mais ba ñu dajee waxtaan nañu waaye depuis lors c'est vrai que on s'est pas réunis waaye ñun comme ni ma la wax rek léegi dañuy jël suñu responsabilité ñun écologie yi ñoo jël suñu responsabilité invité parti benn par benn di waxtaan ak ñoom. bu ko defee recevoir nañ parti yu bëri li ñu war a desee ay carte la peut-être mais parti yëpp ñëw nañu presque ñu ngi leen di remercier je profite de l'occasion pour les remercier cër bi ñu jox ñëw déglu ñu ñu waxtaan li ñu si jublu mooy coordination boobu ngay wax du ñu xaar ko ñun wombat kaa ñi dem ñu coordonné non ñun ñooy jóg parti en tant que parti membre ñu am suñu initiative woo si ñeneen naan mais mais coalition euh, benn bokk yaakaar bi ngeen dajee lan moo nekkoon euh, kii bi lan moo nekkoon sababu dajee bi da ngeen doon dajee pour waxtaan ci seen biir pour préparer élection locale yi wala lan moo taxoon. waaw dañu doon daje pour daje pour toog joxe information mais aussi préparer demoon ci révision liste électorale yi wax si fu ñu toll situation yi et cetera pour nit ñu dem inscrire ak yooyu voilà questions diverses. mais waxuñu fa woon l'ordre du jour c'était pas les candid les can les mais est-ce que jàpp nga ne dina yomb Médina benn bokk yaakaar am fa benn candidat boo xam ne alliés yëpp danañ ci d'accord. waaw d' abord ñun comme ni ma la wax élection municipale du benn candidat ay candidat la ñu c' est des candidats conseil municipal du benn candidat peut-être nag léegi ak réforme yi dañu naan tête de liste bi mooy nekk maire des trucs comme ça loolu la nit ñi di xëccoo ba fàtte yenn candidat yi principe décentralisation ay candidat la man maa leen yàgg yàgg maire it fuuf donc loolu bu ñu ko xamuloon tamit ma rappelé leen ko ku siy wax neel candidat yi bul waxati mukk candidat waaw non mais xam nga tey candidat yi bu njëkk mais fi ni mën nañoo wax candidat ndax ki nga xam ne mooy tedd liste su liste boobu gañee moom mooy nekk maire directement est-ce que tey consensus dina am au niveau de la Médina ci biir benn bokk yaakaar ñu am benn koo xam ne tey moom mooy nekk tête mooy jiite candidat yi est-ce que jàpp nga ne consensus boobu dina yomb Médina en tout cas ñun écologistes yi si la ñuy woo actuellement waxtaan bi mooy ñu fexe travailler sur un candi sur des candidats de consensus je le répète je veux pas faire l'erreur de dire candidat ils sont pas on est on des candidats et naturellement on est tous des candidats ça c'est un parti il est fait pour pour être candidat pour prendre des responsabilités ñun am nañ fulla boobu te c'est pas la première fois ñu nekk candidat mais dañu ne ay candidats la ñu soxla des candidats de consensus c'est-à-dire une liste de léegi nag cette liste de consensus doit être ouverte à tout le monde membre de parti comme souteneur comme sympathisant parce que parti bëggul mooy plus le bëggu maintenant si loolu ñun écologistes yi moom la ñu woo parti ñu ngi siy waxtaan benn benn te yaakaar naa ne bu ñu paree concertation yi avec même les mouvements de soutien dinañ am proposition bu ñu def et voilà nit ñi tamit am na proposition ñu def recueillir nañ ay candidats ay candidatures yu mel ni waa URD candidature yu ñoom kii APE diso bu ñoom Diagne Fada ñu si bëri ay candidat lañu seen liste pour briguer la euh, pour nekk candidat Benno Bokk Yaakaar. Hmm. mais est-ce que gis nga ne considération am na ci biir euh, Benno Bokk Yaakaar respect. fan Medina. waaw xam nga ñun normalement dañuy respecté parce que defuñu lu ñu manqué respect mais amuñu considération parce que amul dara loo xam ne ñu ngi jóge ci benn boo ko yaakaar ñun ñu gis ko mu amal njëriñ parti membre yi maanaam ñun les les les partis membres de benn boo ko yaakaar vraiment vraiment et c'est déplorable c'est vraiment déplorable nga xam yaa xam wàllu emploi la yaa xam nomination la yaa xam lu mu ti doon dama ne on a toutes les compétences nous sommes des consultants dans plusieurs domaines te loolu l'histoire l'a montré le problème mooy lenn mooy dama ne considération da nga ko war a jox sa nawle boo leen andee jox considération maintenant nag Euh, dégg nga wax nga ko sànq gis nga yaa ngi dégg candidature am nga ñaari tur yoo cité. Seydou Gueye ak Cheikh Tidiane Ba. bon qui sont de la paire Cheikh est un euh, euh, souteneur il est aussi un sympathisant du de de la coalition. il est membre d'ailleurs je je moi je le considère comme membre parce que am na ñu naan bokkul APR yooyu man loolu du wax bu yàqu l'essentiel quelqu'un qui se réclame d'une coalition et qui soutient le président de la République et soutient la coalition moi je le considère comme parti comme membre maintenant euh, ñoom ñaar ñooy wax candidat candidat mooy li mu la wax déjà y a fausse parce que cër bi mooy nga jox cër ñi nga àndal sax waa coalition bi am nga droit nag ne je suis candidat à la candidature am nañ si droit ñoom am nañ droit wax loolu ku mu si neex nga ne je suis candidat à la candidature mais li am solo daal te mu leer mooy les candidats seront choisis par la coalition benn Bokk Yaakaar élargie au mouvement élargie aux aux sympathisants. te yéen écologistes yi du ngeen nangu ku leen nappaaje. déedéet mënul nekk sax non ñu nappaaje nappaaje moom mënutul xanaa loolu léegi fële feneen nga koy def yeneen réew sax mais fii mënutul am. Sénégal kenn mënutul nax kenn fii mënutul nekk sax duñ ko nangu. parce que munoo bon ba et puis war nañ bàyyi nañ la gis gis nañ la nga def ba pare jox nañ la bàyyi la seetaan la ngeen def li ngeen mën kay wan ngeen ñu ko ñun bu dee yéen rek duñu am emploi bu dee yéen du ñu am liggéey bu dee yéen duñu ñu am nomination bu dee yéen du ñu am nak yu ñu maye du bu dee yéen du am dara lu ñu joxe. mais mais euh, gestion mairie bi Bamba lan moo ci sa xalaat ndax est-ce que jàpp nga ne euh, Médina yaa ngi gis ne avancement ma ngi fi am ci ni ñu yoree mairie bi. bon au fait on peut toujours mieux faire. yaa on peut toujours mieux faire non non non nul n'est nul n'est indispensable et puis euh, du ma ne tout est nickel ñun écologistes yi accompagné nañ maire bi si lépp. si wàllu euh, euh, aménagement des espaces si wàllu don de de garab wala ay pot de fleur wala ay ciment wala suuf peinture bu ñuy def Médina Seck. kon yéen bu même bu opposition teewul yéen écologistes yi leen war en tant que doomu Médina mais parce que conseil municipal la mooy li ma lay wax la mairie n'est pas partie la mairie c'est le conseil municipal vous avez les écolos dedans ñun ñoo dem élection ba siège fa vous avez d'autres les d'autres partis c'est le conseil municipal il est conseil municipal des Médinois. tu n'es pas conseil municipal de parti donc ñun dañu am mission accompagner la commune parce que on siège dans la commune et nous délibérons pour l'exécution du budget communal donc c'est normal que ñun ñu jël suñu li ñu am di jàppale suñu maire yi mais ça n'a rien à voir avec la politique jërëjëf euh, Aliou Sané euh, yow nga bokk ci fédération démocratique des écologistes du Sénégal yow la invité ci seen émission pencum réew mi léegi ñu wax ci euh, actualité bi dafa am ñaari député Benno Bokk Yaakaar ku tudd Boubacar Biaye ak Mamadou Sall ñu tuumaal leen ci trafic passeport diplomatique ay tuuma la coow lu bëri am ñu baree bari ñoo ngi wax ne lever seen immunité parlementaire mbir mi dafa yeex yow lan moo ci sa xalaat. oui dégg naa information bi d'abord ma ko bu dee loolu c'est avéré bu dee am na man de bu ma nekkoon seen place ñuy wax loolu damay demander man maay demander sax à être entendu le plus rapidement possible parce que man noonu lañu ma yaree. boo et boo àndee ay nawle tamit da nga leen di sagal da ngay fexe sa nawle bañ a am fu ñuy sëgg wala lu ñuy ruus wala am jaaxite di toog di xalaat la am naam amul. parce que je pense que am na loo xam ne mënoo ko tuumal ay nit ay sénégalais comme yow ay doomu góor nga jug tuumal ne dañuy def lii te amul. donc ñoom ñoo mun a leeral léegi mbir mi bu dee loolu dafa am man yaakaar naa ne tey ku mu munti doon bu dee dëng may déggal li ma lay wax mooy tekkil sa ndombu tànk nga dem régler loolu parce que góor noonu lay doxalee waaye nag bon bu dee lii ñuy wax am na moom. Vraiment, c'est à déplorer et que l'État doit prendre ses responsabilités et toutes les responsabilités. mais euh, passeport diplomatique bu ñu ko waxee am na lu bëree bëri lu muy tekki ñenn ñi gis nañ ne ni ñu koy joxee ci Sénégal euh, dafa yomb ñenn ñi sax jàpp nañ ne jabaru député du député wala jëkkëru député. Euh, wala nga am euh, député euh, jëkkëru jëkkëru député du député ñenn ñi ñoo ngi koy waxee noonu ñenn ñi jàppoon nañ ne passeport yi diplomatique yi ñuy jox jabaru député ak jëkkëru yi mënoon nañ koo jox ñi nekk ci ci mën nañ ko jox maire yi wala am na ñeneen ñu ko gën a yeel lool maanaam wàllum joxe gi daal gis nañ ne dafa am benn anarchie bu si am yow lan moo ji si xalaat. waaw xam nga loolu dina ma xaw a jaaxal tuuti bu ma déggee gars yi di wax loolu souvent passeport diplomatique c'est vrai président moo ngay joxe. dina ko jox ay sëriñ dina ko jox ay président ONG wala association. ay hommes d'affaires ay voilà moom mooy xool ñi nga xam ne mun nañ taxawal Sénégal si seen fulla si seen jom si seen ngóora ak li ñuy représenté mu jël passeport diplomatique may leen renouvelable chaque un an loolu dafa nekk lu yanu maanaa beneen bi mooy boo nekkee député lu tax sama xalaat di gën a simple lu tax ñu jël sa jabar jox ko passeport diplomatique du question ne moom député la. waaye eh, dafa nekk soxna député maanaam ndaw réew mi te tey bu buggee dem tukki àndax ak jabootam baaxoon na ñu yombal jabaram dem beex ñëw bi nga xam ne dina mun a ànd ak jëkkëram te duñu am benn gàkk-gàkk te bu boobaa tamit dina am. mais boo mën nga defal dérogation wala dérogation je pense pas mais. c'est un passeport diplôme. mais ñoo ñoo ko gën a yanoo gën a gën a mérito ka maire yi. non maire yi am nañu ko am. xaw ma nag man day. non mais comme par tey ni ko député yi amee sañ-sañ maire yi amuñu ko sañ-sañ. waaw c'est que xam nga maire xam nga maire sax d'habitude boo seetee le maire. oui le maire am na maire yu am passeport diplomatique ah su ma juumul parce que dangay demande demander président rek. président mooy maye. beneen bi mooy soo nekkee maire sa titre maire mun na la yóbbu foo bugg sa titre maire foo bugg mun nga fa dem peut-être kay li ngay sonn mooy dem di demander ay visa yooyu mais maire boo demander visa ñu jox la. maire sax day envoyé ay mission donc maire amul problème mu voyager te boo voyager maire tamit sa titre maire nga yor no problème li li li am solo daal mooy jabaru député bu ñu la joxee passeport diplomatique c'est pour yombalal la pas pour nga dem di si def naka si dul noonu hmm. dañ ko def parce que sa jëkkër député la ñu yaakaar ne war nañ la mun a yombal dem beex ñëw bi yàq sa jëkkër buy tukki nga mun ko gunge wala yooyu mbir mi daal jàpp nga ne war nañ ko mën a leeral waaw boobu bu dee mbiru bu ñuy accuser passeport waaw dafa war a leer sax loolu amul ndax mun nañ ko mën a leeral dafa war a leer dafa war a leer parce que ñi ci tudd si je me trompe pas sax gis naa ne du ñu ay mag noonu bon yi ma si dégg tamit mënu ma ne yëpp am na euh, parce que xaw ma wóoru ma mais daal leer ba leer mooy jot na yooyu ñu régler ko te foog naa ne état Sénégal toll nañ foo xam ne lépp loo xam ne léegi euh, mbir yu mel nii la dana leer. d'accord léegi euh, Kilifeu ak Simon tamit dañoo gis benn vidéo ñu tuumaal leen lu jëm ci wàllum trafic passeport diplomatique ñoom tim ba ñu dugal leen ci kaso bi loolu tamit yow lan moo ci sa xalaat. waaw non ñoom je pense pas que dañ leen tuumal trafic de passeport diplomatique parce que dañ dégg la dégg naa ñu naan Simon dafa joxe woon passeport am voilà bon peut-être c'est différent trafic wala faux usage de faux mais en tout cas euh, ñoom tamit ay activiste lañu activiste ni nga ko xamee dañuy wax rek di dénoncer rek lii du yoon lii dëgg la lii du yoon kon ñoom tamit dañuy war a moytu ñu leen di tudd ci yenn yi la nga xam ne nit ki waru ko def kenn warul jël sa di ko joxe pour kenn di si tukki kenn du jaay visa visa ambassade moo koy joxee c'est gratuit à part caution bi ñu lay laaj xaw ma lan nga war a verser demande ngay def amul fu ñu jaayee visa. donc yow miy wax tamit dañu war a niw sénégalais niw man daan naa ko wax sax maa yow wax naa ko si ay mission ay type niw niw type de sénégalais man gëwuma ko amul niw niveau type. <coughs> amul niveau type sénégalais moo fi nekk lan mooy niveau type de sénégalais loolu sax xaste la duñu nouveau ñun dañu am lu ñu donn moo fi nekk ba léegi te loolu mooy suñu fierté mais li am solo mooy nga nga am noo mel am loo xam ne la ngay woote da nga koy niru da nga koy niru wax dëgg yàlla la ngay woote danga koy niru bu yàlla ñëwee nag wala ay mbir ay mbiram da koy da ngay nangu da ngay nangu dogal am grandeur ne way def naa erreur je présente mes excuses aux Sénégalais voilà et, et je démissionne de tous mes engagements yi nga xam ne bu dee nag c'est avéré parce que li ñu gis man gis naa vidéo peut-être euh, kilifa muy wax man samay rakk la ñu amul benn problème ay Simon ñoom ñëpp samay rakk la ñu mais euh, yéenewu ma leen wala lii mais nag ñoom lii kuñ ko xamaloon tamit wax ko ñoom ku lu ñu xamal nit wax nañ ko donc nag nañu nangu tamit ñuy wax seen mbir léegi euh, waxtu wi jeex na lan ngay wax ci commune bu Médina Euh, ak coalition benn bokk yaakaar biir commune u Médina en tant que responsable waa li may wax rek mooy li may waxtaan ak parti yi temps yëpp mooy daal dafa jot ñu toog waxtaan yëkkatindoo parce que wat gaal yéegoo buñ ko deful dinañ am surprise bu rëy rëy léegi bu ko defee ñu invité tous les partis membres en l'occurrence le, le parti au pouvoir le parti du président l'APR ñu wax leen ñu xam ne dafa am ñu ñu àndal bu ko defee am nañ droit nag nekk euh, déclarer seen candidature à la candidature mais bu ñuy wax nañu ne ay candidat lañu bu ñuy wax nañu ne liste la bu ñuy wax nañu xalaat ne dafa am ñu ñu àndal te am nañ ay ambition yàlla a des candidatures déclarées yoo xam ne ñoom dañ ko war a prendre acte ñu ñaan tamit journalistes yi tamit ñu gëstu loolu parce que bu ñu xool rek si wàllu doole wala wàllu mobilisation wala wàllu post wala pouvoir mais gestion collective la maire yi affaire u gestion participative la donc ñëpp la soxla kon ñun dañu war a joxe exemple boobu au sein de Benno d'abord bu ñu buggee gérer maire yi mooy nañu faxe doon benn suñu biir ku nekk ñu jox la sa gëdd xam ne rek ñenn rek nekkuñu fi kon si loolu la liggéey pour am ay candidats de consensus te bañ a fàtte tamit am na list boo xam ne mooy liste ville de Dakar loolu dañ si war a xalaat xalaat na la ñuy tëggee liste yi qui su nekkee maire qui seront les adjoints qui seront les présidents de commission qui seront les secrétaires élus qui seront les conseillers municipaux à la ville et cetera et cetera donc il y a tout un travail technique à faire c'est ça l'expérience politique mais dans les discours tu sens que il y a un peu de l'ignorance parce qu'on parle de candidats non des candidatures bon je pense que il faut aussi pas exclure que partout dans le pays toutes les dans toute la toutes les coalitions d'ailleurs les partis sont faits pour briller ils ont des ambitions d'être maire wax naa la ko ne la tey maire yi moo am solo maire yi moo ëpp garanti ñëpp maire yi moo ëpp alal ñëpp maire yi moo ëpp solo ñëpp maire yi c'est pour l'éternité tandis que nit tu n'es pas éternel okay. donc kon kuñ fi fal maire avec une bonne équipe l'essentiel vous avez les moyens et les garanties pour mettre dans les bonnes conditions les populations de votre commune mu nekk euh, nekk mooy nekk coordonnateur fédération démocratique des écologistes du Sénégal ci Dakar euh, moom la ñu invité woon ci euh, pencum réew mi mbokk yi ñu koy sant bu baax a baax euh, di ko gërëm kon mbokk yi Abdou Khadre Seck moo nekkoon ci kàddu gi moom du Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi ñu leen di ñaanal nag màggaluk jàmm ndax suba la suba la màggaluk Tuubaa gi suba ci dimanche ci voilà donc ñu ngi lay souhaiter bon màggal yow en l'occurrence mon ami Djili di ko souhaiter tous les murit mais tous les sénégalais parce que soo xoolee màggal bi sax dootul màggatu murit murit mhm. màggalu ñëpp la sénégal yëpp ko bokk muy suñu fierte muy loo xam ne dañ ko war a lii lu baax la lu wane ne askan bi suñu maam yi liggéey nañu mhm. moo tax ñu war a góorgóorlu fas jom mhm. fexe mel ni suñuy waajur yi fexe mel ni suñu suñuy maam yi di ñaanal tamit waa réew mi yëpp di wax ne yàlla nañu yàlla jàppale yi nga xam ne mooy projet état mu nekk projet yoo xam ne c'est destiné aux Sénégalais ñu mu am si réussite voilà euh, kon mbokk ñu leen di jox dig daje Abdou Khadir Seck moo nekkoon si kàddu gi Mamadou Diaw Diallo ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jaam ak